bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashraf alanbiyaai walmursalin nabiyina muhammadin almakin waala alihi wa saxaabatihi ajmain subhaanaka laa cilma lana illa maa callamtana innaka anta alcalimu alxakim wajcal kalaami raashidan wa murshidaa wa fikratii nawwir wa qalbii arshidaa nu fas yéene dimbali ko suñu borom subhaanahu wa taala ci jéema tontu laaj yi fi jotorot ala mazhabil imaami malikin rahimahullahu taala ak déggiinu yenn ci borom xam-xam yi ñuy sukkandikoo seeni wax yal na yàlla dolli leen yërmande ñoom ñëpp mu ne laaj mu njëkk bi mbokk mi leerlu koo xam ne day dem ca banque ba de leb su ko defee di jënd marchandise yor ab muy laaj naka lay génnee asaka ndax moom nee seet seetluwut fu muy dencee alal euh, xaalis boo xam ne day mat at euh, awwalan fi ñuy tàmbalee mooy leeral ko ne ko mu dee banque yi nga xam ne dañuy jëfandikoo riba moom kooku sharia day tere nga dem fa di li leb foofa ñu lay lebal ci anam boo xam ne day am riba léegi bu ñu la lebalee cent mille ni la faaw booy fay dañ cey teg nangam loola yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da koo tere te loolu dana waral liggéey bu bañ a barkeel ah, riba rek moom la yàlla wax ne képp koo xam ne da koy def dafa mel na kaa déclaré yàlla guerre ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa azanu bi xarbin min allahi wa rasuli loolu amul benn bàkkaar bu ko yàlla wax mu dul riba ah, kon nag mat naa bàyyi xel xanaa mu dem ci banque islamique yi wala ñi nga xam dañuy def at tamwil al finance islamique loolu lay njëkk a bàyyi xel kon bu fekkee loolu la doon def ci banque riba yi banque tubaab bi moom bu ko manee arrêté rek incha allahu rabbi loola tawfiix lay doon waaye bu ko continuer rek day mel ne day day dund ci riba yàlla nuñ ci yàlla musal riba day yàq ak jaamu yàlla te ku koy jëfandikoo même boo cay jéem a gis lu lu mel ne njariñ lu yàgg-yàgg ci yàqu lay ci yàqu rek lay mujj ginnaaw loolu asakay bitik daa bokkut ak asakay ku yor xaalis di ko denc at te am koo xam ne asakay xaalis moo ko war am ko xam ne nag ab jaaykat la kon ki nga xam ne ab jaaykat la moom ni ab jaaykat ku ne xam na du denc xaalis ab jaaykat bu amee xaalis day jëm jëndiwaat marchandise marchandise mu jeexaat mu jëndaat marchandise kooku marchandise ma jour ba mu ubbee bitig ba lay date ci misaal bu fekkoon ne premier janvier wala ci gàmmu wala ci koor la ubbi bitig bi bu demee ba weeru koor dikkaat day total day totaliser marchandise mépp li am ci marchandise. Euh, njëg gu ci nekk da koy inventaire lu ci nekk mu xool lim ko jëndee woon wala boog li muy jar ci marché bi bu noppe boole lépp nag daal di xool lu mu yor ci liquide mu boole ko nu mu toll mu asagaal ko xool saako ceeb bi xool saako euh, pomme terre bi xool bitéel diw bi xool keesu tàngal gi lenn lu ci nekk la ko jëndee woon lu mu sew sew sew lépp mu dajale ko dajale ko bu noppee da koy jox benn somme ci misaal mu jox ko un million mu xool nag li mu yor ci xaalis xool ci comptoir bi li mu ci xaalis lépp. bu fekke am na ku ko ku lebaloon te mu wóor ko ne ko kooku moo xam ne yàgg-yàgg dana ko fay mu boole ca loola bu fekkee am na marchandise moom mu fayoon bañ war ko jox te joxuñu ko ko mu xool marchandise mooma xayma ko lépp mu boole ko dajale ko nu mu toll rek mu diviser ko par 40 génne ko asaga waaye kooku moom nekkul na dañ ko naan ko da ngay téye xaalis déedéet marchandise ma ci boppam mooy xaalis ba incha allah wallahu aalamu bu dee laaj bi ci tegee mbokk mi laaj bu ñuy julli dita taaye yëngal ki ñuy yëngal suñu baaraam yi lu atte bi atte bi mooy dañ koo sopp am na ñaari façon am na loo xam ne dangay ngay tàllal baaraam bi rek mu jub xocc nga yéene ci seede ci kenn ku yàlla gi ni yàlla nekkee kenn léeg-léeg it euh, da koy yëngal bu dee ci yoon al imam malik moom suñ tubaa nee woon taxrikuna sababatan tammat tamaam ba mi lim gënee lu julli moom la mu jëlim kon bu dee téere malik yi moom yëngal ki la ñuy wax su ko defee boo ko dee yëngal am na ñoo ne da nga cee mu mel ne bol de booy dóor seytaane rek am ñoo xam ne dana dañ ne bu dee borom foo waagi fot dawaane day wax ne dangay ngay lim lay dimbalee mooy nga bàyyi xel ne li fekk mi ngi yëngutu yaa ngi ci julli pour sa xel bañ a waaye daal lu ñu sopp la ko bàyyi woon ne du wàññi dara wallahu aalamu mu dee laaj bi teg mbokk mi laaj ne eh, génn kilifa la goo xam ne dafa muuma nga ne mënta wax waaye day gis dañ koy jiite julli waaw kooka nag kum jiite julli julli ko du baax eh, kum jiite julli julli ko du baax ndax mënta jàng alxuraan te pour nga pour nga mën a jiite faaw nga mën a jàng alxuraan mën a tudd baat kon ka ko mënut moom wàcc na ko na nekk maamu wala mu julli julli boppam waaye buñ ko jiitelee rek matul imaam ñoom jiite ñëpp seen julli du baax waaw bu moom jàng na nag buñ ko jiitelee moom moo waroon a bañ moo waroon xam ne leen man matuma imam wallahu aalamu alhamdulilah bu dee laajoo mbokk mi ci tegu mu ndax liggéey ci barab boo xam ne dañ fay jaay sàngara lu mel ne xeetu baar yi dagan na tontu li mooy déedéet loola du liggéeyu ab jullit ab jullit du liggéey lu mel noona ndax bu fa liggéeyee faaw mu def lu xaraam dana servir ay sàngar wala mu jaay sàngar ndax ku ñëw ne la jaay ma sàngar da koy jaay te kon yaa ngi tàmbalee jaay sàngara te bul wax ne damaa ñàkk pexe déedéet a liggéeyee ak lépp loola fekk rek moo xam na nga yàq dara la fayal ak lu mën a doon daal barab bu xaraam moom feccukaay ak baar ak fu ñuy jaay yàpp mbaam ak jullit yi nekk bitim réew nañ ko wattandiku te xam ne alali àdduna jaru ko li ngay dundale sa njaboot war ngaa góorgóorlu ba bu ëllëgee yomal xeyam sa njaboot bañ laa lay bañ bañ la bañ laa booleeg yàlla te yomal xeyam day am suñ borom njaboot day ñëw ne ko ñun suñ bàyyi ndekee alal ju xaraam rek la ñu doon dundale te alal ju xaraam boo ko dundalee sa njaboot ngir ñu jëf lu xaraam day yomb suñ tubaa nee na kul wala boog arab nee na kul ma chita tafaal mithlahu wa xalilan ma chita taxdu shaklahu suñ tubaa sax moo ko wax ci masarik waaye waxi borom xam-xam nee na bu la neexee nga lekk loola neex de waaye lu mel noonu dong ngay jëf bu la neexee nga ànd ku la neex waaye jikkoom rek nga yore kon nag na nga ci bàyyi xel kon loola dëgganut kooku bàyyi ngir jëmme yàlla wut leneen yàlla dina la ko jox. laaj bi tey nga mbokk mi laaj ne julli yëpp da koy julli waaye daal bu julli takkusaan jote day bañ a dem ci bëccëg gi noonu takkusaan nga ñëpp di ko gis su defe defee ñu naan kii nee looloo tax du ko looloo tax daal du ko julli takkusaan moom du dem ca jàkka ja waaw loolu mu def nag mooy ngistal lool lii mu def mooy ngistal dëgg-dëgg nag mooy bàyyi na julli ngir lan ngir waxe nit ñi loolu mooy ngistal kon jëfut ngir yàlla day jëf ngir nit ñi <laughs> loolu fi na ngistal bu sew la dañuy wax ne lépp lu baax loo xam da nga koo bàyyi ñu ne lu tax nga bàyyi ko nga ne nit ñi su boobaa rek loola ngistal la moo nga jëf lu baax ñu ne lu tax nga jëf ko wala boog nga jëf lu baax fekk li nga ci li nga jublu ci jëf ja mooy bëgg nit ñi ne kii jàmbaar la kii def na nangam kon lépp jëpp jëf jooy def da koy def di xool ci xool ca yàlla bu la ñu xool su ma ko jëfee doomu aadama dañ may wax lii wala nangam déedéet boo ko defee rek loolu mooy ngistal te ngistal bokkaale bu ndaw la boole ci nag mu bàyyi tuyaaba ju rëy mooy bañ a julli ci ci jàkka ja kon daal bu fekkee yàlla lay jullil jërul mu naan su ma jullee nit ñi dañ naan ma nangam yow yàlla nga jullee taxoo bu la nit ñi waxee lu lay waañ bu la nit waxee lu mu lay wàññi fa laysa yadurruka fa isa ardayta mawlaaka suxtu man lahu asayta bu fekkee su suñ borom gërëm na la def nga lu baax li nga def suñ borom kontaan na ci waxi nit ñi lu mu lay kon nag loolu mooy ngistal dëgg-dëgg incha allah kon nay dem di julli ji yàlla lay julli julli lut nit ñi bu dee laaj bi te tegee mbokk mi laaj koo xam ne daanaka du julli ci waxtu xaw a sàggan boole ci euh, day teg bangam ci buntu këram di wax ak gone yi ak. ne ko mbokk mi laaj daal mooy ku amul Pastef mu ne looloo tax ñaar bu ko rombee du ko nuyu du wax ak moom waaw la nag mooy nga laabire ko ab jullit da nga koy laabire euh, laabire ko koy def da koy laabire euh, li sëñ Tuubaa waxoon ne euh, farxam saxiiran la farxam saxiiran la takun mudaxira xanhu la yaadan Euh, min nasihatin tara lahu fiha rusdan tara lahu fiha rusdan yaani gis nga ci mbir moo xam ne gis nga ci ak njub loo xam ne boo ko waxee mu jariñ ko au nga di ko mere bu ko denc kon kooka woo ko ne ko sëñ bi de dama laa soxla sama kër wala ci këram mu toog nga ne ko yow de damaa gis ngay ko baax dama laa bëgg li ma yéene sama bopp nangam ma gis nag nangam ak nangam naa boo ko mën maa ngi jéggul ndax naa lii sax sama xanaa bëggal lu baax rek waaye boo ci mënoon a gën a góorgóorlu boo mënoon gën a def lii gën ci wàllu liggéey ci wàllu nangam incha allah rabbi xalaat boo ci amee nga wax ko ko bu dee liggéey nangam intéressé na dinaa la wëral nangam julli gi nangam nangam laabiri ko la nga man loola nag moo gën di ko di ko mere boo ko waxee def ko nag nga xam ne kon def nga la la war wallahu alamu bu dee laaju mbokk mi ci tegu nee na ñiy tuddee seen bopp ay yàlla yàlla ndax ci jamonoy Sëriñ Tuuba dañ fay nekkoon ah loolu de dara wóoruma ci wax dëgg yàlla li wér te wóor daal mooy loola yëfi caaxaan la yëfi yoo xam ne seytaane moo ci yóbbu ñu bari ba jaamatuñ yàlla ndax bu fekkee da nga bëgg a jaamu yàlla te tuub tegewoo ko ci sunna si yonante bi sallallahu alayhi wasallam jur moo da ngay fent sa mbiri bopp defe ne yaa ngi ci lu baax fekk seytaane moo lay seytaane moo lay wammat wa man arada an dikri fa inna lahu maishatan danka ah, incha allah rabbi kon nag koo xam ne da ngaa bàyyi li fi yonante bi sallallahu alayhi wasallam jàngale sa yoon bopp ne man yàlla yàlla laa tudd damay gis damay gis nangam kooku ñooñu saytaane rek moo leen di womat yàlla nañ ci yàlla musal wallahu aalamu bu dee laaj bi ci tege mbokk mi euh, laaj ku doon julli safa far fàttaliku ne am na baada salaam bu mu waroon a sujjoot boo xam ne ci julli yi weesu la woon nu muy defa day continuer safa ba bu safa ga jeexee bu sëlmalee mu daal di sujjoot baada ba doo ko julli witar wallahu aalamu bismillah bu dee laaju mbokk mi nga xam ne moo ca tegu nee na day jaay ci bisu ajuma jamono ji nga xam ne xëy na dañuy tere ko fa jaay ndax ne tey it nee na moom ñamiy jaay heure booba rek la ñuy génn dañuy jël pause dañuy jël pause mu war leen a jaay te heure booba day tombeek waxtu ajjuma waaw bu fekkee daal tombeek waxtu wi xaraama jaay kon su boobaa kooka mooy waxtu wi ñuy noddu noddu ñaareel gi dañuy ne kon képp ku ajjuma war day xaraam ci yow nga ngay jaayanteeg jëndanteeg liggéey ak lu mën a doon nga nekk ca ba ah, loola teel a julli ji ajjuma rek loola dafa xaram naka noon kiy jënd ceeb it bu fekkee moom it noonu la moom it noonu la kon heure yàlla moom dañ ko war a warmal suñ programme dañ koy àndale def programme yàlla ba noppi bu fekkee nag kiy jaay ak kiy jënd ñëpp ajjuma waru leen kon su boobaa loola ayut waaye bu fekkee am na ku ci ajjuma war rek su boobaa loola xaraam na kon nag na bàyyi njaay mooma ñi may jaay heure bi la ñuy génn nag lu mën a doon heure boobu la ñuy génn waaye heure boobu moom la la yàlla digal bu fekkee nag jaay ñooñu moo la gënal jëfandikoo waxtu suñu borom bi kon nga xam ne loolu moo la gënal bu dee nag jëfandikoo ndigalu suñu borom bi moo la gënal ak loo ci mën a ñàkk kon nga bàyyi loola lépp ndax yàlla bu xasee ba teew da ngay fàtte lépp dem li sëñ Tuubaa waxoon ne julli na yàq waaye boo ko dara yàq dalay yàqal sa programme kon nag na bàyyi njaay moom it te dem julli ji bu ko ajjuma waree bu fekkee ñamee jaay it ajjuma da leen war ñu lànk bañ ko julli ji ba tey xaraam na wallahu aalam laaj bi tege mbokk mi laaj ne ñoom biñ dee xale dañ doon kuttu ak lu mel ne bu ñuy rey yenn yenn bàyyi may ni ni ki mbëtt yeeg kañe yeeg yu mel noona jamonoy xale dañuy dóor bopp bi rek mu toj mu ne léegi nag loolu moo xam nañ ne dafa xaraam loolu tontoon nañ fi laaj bi ne dafa xaraam dëgërut kuttu moom boo ko defee rek medd la ak naka doon jël dara dóor ko ba bopp bi toj mu dee noonu te rendi woo ko loola medd la mu ne ndax dañ ko war a tere suñ gone yi léegi ak gone yi koy def waaw loo xam ne xam nga ne dafa xaraam kay <laughs> loolu kay jërut laaj da nga ko war a tere kon xam na ne lépp lépp loo def gannaaw ba nga yëg ne li ma doon def dafa xaraam euh, kon incha allah rabbi da koy rëccu tuub ko gannaaw ba nag nga fexe ba sax njaboot duñ ko def ko koo ci mën a laabire rek nga laabire ko ko laaj bi tegee mbokk mi ne soxnaam daa gis benn waay boo xam ne euh, soxnaam barab ba mu nekk bu ko góor ñu nuyoo day bañ nee na jëkkër ji nag naan ko lii moom mënoo ko fee bañ ndax euh, ñëpp koy def loola waxi caaxaan la jëkkër jooju jëkkër ju ñàkk Pastef la euh, ndax koo xam ne lu yàlla xaraamal sa soxna defu ko nga waroon ko encouragé ne ko jëf yow de danaa la gën a fonk wala nga yëkkati alal may ko ne ko yow de ni nga sàmme sa diine neex na ma di fa too loolu di ko encouragé ci ak mooy yàlla kon jabar ja bu mu déglu yàlla la koy defar ndax yàlla moo ko ko tere jigéen li ñu war a def li nga xam ne ay jaamu yàlla la loolu seen yoonu jëkkër nekku ci jëru ñu naan sama jëkkër nee na ma léegi lii neex na ko naqari na ko même boo amutoon ci kër loolu la la yàlla sant kon jëkkër mënta dindi lu yàlla tere benn kay dala ci gën a dëgëral wala boog bu la ci mën a dëgëral bu la ci mënta dëgëral yow nga jàpp yàlla rek bàyyi ko ci biir kon nag loolu jërta laaj joxe jox loxo góor moom yàlla moo la ko tere sa yoonu jëkkër ne ku ci daa fekk kay moom dañ koo santoon mu encouragé la ci waaye na bu demee ba di la ci delloo ginnaaw nag kooku moom da ngay xam ne rek defut la ko war waaye loolu bu mu tax mukk na ngay jox loxo góor ñu naan sama jëkkër ma ko wax déedéet boo ko defee rek jëlee ci bàkkaar te yàlla bu lay duma sa jëkkër du fa nekk bisimilah bu dee laaj bi tege mbokk mi leerlu ne moom ay julli yu bari da koy raw maanaam day faat ay waxtu yu bari muy laaj nu muy def ba wenn waxtu du ko faatati xanaa ragal yàlla te xam ne waxtu yooyu di ko faat wenn waxtu wu ci nekk bàkkaar yu rëy rëy la te bàkkaar yooyu lu koy naqari ci bàmmeelam rek moo ko ko teg lu koy naqari ëllëg yowmal xeyam moo ko koy teg kon nag jaay sa adduna jënde ko jaay àllaaxira jënde ko adduna loola musiba la kon di def ay bàkkaar di continuer bu faatu ñëwee noonu ngay faat waale loola mooy suul xaatima mujj gu ñaaw saa yooyu def bakaar di ca continuer bi waxtu wu jot nga faat ko bu fajar jotee doo yeewu man naa am danga toog at mi sax ne at mi ñeenti yoon laa ci julli fajar wala benn yoon wala ñaari yoon te sax nangama xewoon moo tax loolu boo ko defee na la wër a yaa dëkk ci bàkkaar li gën a bon ci àdduna mooy al israaru fi fil maasiya mooy nuur ci bàkkaar def bàkkaar di ko tegale day dem ba sa xol wow nga doo ko garaawalati loolu nag mooy waral mujj gu ñaaw kon amul ak amul lu ñaan lii mooy tax nga bàyyi ko lu dul ragal yàlla ta xam ne loola loolay naqari sa bàmmeel rek bàkkaar boo fa yóbbaale lay doon te faat waxtu julli bokk na ci bàkkaar yi mat a wattandiku incha allahu rabbi na ci bàyyi ni nga xamee ne boo amoon yitte adduna te ji ku ñu ku ñu waroon wax ne tey ci euh, trois heures de matin nga war a tukki wala quatre heures wala heure bu la war a wax doo ko faat da nga góor ba def la nga man boo mënee fanaan da nga fanaani ku ne ko dañ lay may visa mais visa bi xaaju guddi lay doon da nga góor-góor ba ko kon nag bu la sa yitte adduna ñoree sa yëfi julli ñor la wala leneen loolu daa fekk ak ñàkk ñor la rek kon am ci positif ak bakkaar ba nga xam ne mën nga cee jëlee nga ragal ko bu dee ni nga koy fayee rek mooy na ko faate woon amul wuute julli noo ko faate rek bu fay jotee noonu ko koy faay xoolal na ko waroon julli bu waxtu woo jotee boo ko faatee nga jullee noona tuqdaa kama faatat la borom Axdari wax ni ko faate woon rek nga koy fay wallahu aalam bu dee laaj bi tegee mbokk mi laaj jigéen a ngi nii borom këram faatu mu war a def li ñu tuddee iddatul wafaat idda joo xam ne eh, mooy li olof yi tuddee eh, wala ñaawlu mu ne dafa bari luñ ci dugal nag te bokk ci ñu leeral ko dëgg-dëgg idda jooju mooy lan Eh, idda jooju de weesuwut gën a jekkandiku gën a eh, sàmm sa bopp muuri say cër bam daj te fonk ak jaamu yàlla te góorgóorlu ci ñaanal borom këram lool rek la amul dara luñ ci yokk lu bees moom daal lépp lu jigéen di def te bu ko jigéen defee ñu tuddi ko toilette sañse wala xet gu neex wala yu mel noona loola dañ ko koy tere lu dul nag la nga xam ne da koy jëfandikoo ci yaramam ngir bañ yaramam taq wala yu mel noona loola may nañ ko ko waaye bu dee daal parfum yu neex a neex wala waajtaayu jigéen loo xam ne bu ko jigéen masaan def ñu ne waaj na nekk ci ay yére yu rafet lool loola moom dañ dañ ko ko tere amaa yi ci des nag lépp mën na ko ngay togg di lekk di naan kenn waxu da ngay bank say tànk da ngay euh, rawatina nag bu dee ñi nga xam dañ naan balaa waxtu julli wee jot da ngay julli loolu boo ko defee bàkkar bu rëy la wala da ngay bàyyi ba waxtu wi jàll doo julli nag nit ñi yooyu yëpp waxi caaxaan la da ngay taalal sa tànk waxi caaxaan da ngay nekk ci néeg bi rek lalu déedéet la wérut kon daal terewuñ la dara yi nga xam ne jëfi aada la am na njariñ liñ la tere daal mooy waajtaayu jigéen euh, dégg nga sañse loolu tere nañ tere nañ la ko su ko defee nga daal muur sa yaram bam daj loo man ci jaamu yàlla nag nga yokk ko ak ñaanal sa borom kër amaa nag yeneen aada yeeg da nga yor paaka ak da yor nangam ak yooyu yëpp waxi caaxaan la rek euh, rawatina bu dee lu mel ne maire yi nag dañuy sonal jigéen ñi lool bu ñuy muur da ngay def lii lii aadal lii fii lañ ko fekk loolu amul njariñ wajat na aba lool loolu yéefare ñoo ko daa wax lii maam yaa ko daa def buñ la leen lii dañ ko def ne leen ne leen man soxluma li maam yi daan def li ma soxla mooy li diine santaane lépp loo xam ne daa borom xam-xam ñoo ne lii diine santaane na ko loolu mat naa fonk waaw ah, maanaam lii lañ ko fekk ak ku weddi aada yeeg nangam loolu lépp amul njariñ incha allah wallahu a'lam bismillah bu dee laaju mbokk mi ci tegu mu euh, xam naa mbokk mi ko jiitu day laaj kan mooy dong daara ah loolu nag comme jëmul ci wàllu diine moom bay wañu bàyyi ko mu jàll loolu moo ay baati olof la rek mu dee laaju mbokk mi ci tegu mu ne jigéen a ngi nii joo xam ne borom këram ayewul ci moom ngi borom këram daa war a aye ci aawo ba mu bëgg ñëw aye ci moom bëgg a joteeg moom ndax day nangu ngir ne dañoo wax ne sa borom kër bu bëggee joteeg yow boo bañee da nga ci am bakaar ak yu métti ci wax wala boog nu muy def tontu li mooy déedéet du nangu. du nangu sa borom kër bu bëggee joteeg yow ci loo xam ne yoon la waaye bu bëggee joteeg yow ci loo xam ne du yoon kooku moom boo ca d'accord sax da ngay ànd ak moom bàkkaar ba mi ngi mel ne mu fekk la ngay gis deret baax nga nangu dem joteeg moom kooku dafa xaraam wala mu fase woon la ñetti fase nga nangu di jotewaat ak moom kooku dégg nga ndax bu la fase sax dëgg la du sa borom kër bu fekkee tamit da daa am keneen ku am xaq mu jël àqi kooka bëgg la koo jox lànkal ne ko ah, déedéet ay woo te sàcc ay dafa xaraam te yow yaa ma a tere lool sax man maa ko waroon a bëgg a def nga nga bañ waaw su boobaa nag man bëgguma lekk àqi jàmbur lii du sama àq sama àqu nawle la su ma aayee maamoo sama bopp waaye di sàcc àq àqi jàmbur nag sama xel du ci dal tabaarkàlla loola jaaduwut texul nag lañ cay wax naan ay bu ca doom juddoo nangam mag du doomi yoon ak loolu moom waxi waxi kii la rek waxi waxkat la rek waaye lool moom wérut ci diine wala kulli loola bu ko nangu incha allah bu ko forcé wala boo xëy na mënu ci dara mu xam ne ngant la waaye daal bu mu ko nangu na ko na ko tere boppam bu ko manee ngir ne lekk ak jàmbur la laaj bi tege mbokk mi ne góor a ngi nii juñ may soxna mu jàpp soxna si di ko dóor heure bu ñëwee ñu waxtaanaat mu jàpp ko di ko dóor ba yàlla dogal daal soxna sa ne moom du demati baayam dem ngir mu may ko baat mu bañ mu yëkkati alal jox ko ngir ñu ñaanalante al delloo ko góor ga bañ gannaaw ba góor ga tukki gisatuñ ko ba mu ñu dégg ñu ne takk na soxna mu ne waaye lànk na ba léegi nanguta may soxna mu nanguta may baat xale bi xale bu jigéen bi mbokk mi laaj nee na jëkkëram dem na tribunal waaye tribunal dañoo da fexe ba wut aw kayit wu bokk ci moom indi ko waaye nee na moom loolu mënu ko am te góor ga sax nekkatu fi muy laaj nu muy def na muy def mooy day dem ci mbokk ya mbokki góor ga ña ñaari woon soxna ay baayam ay kilifaam mu dajale leen leeral leen mbir mi xamal leen ah sama doomi doomi kum ci sa doom kat ba ngeen bëggee sama doom ji da ngeen ñëw ñu yëpp ñu ma may leen ko ci njekk ak teraanga comme dem na ba taxaw taxawaay bii mel na da koo bëgg a xor ñoo ngeen jël seen responsabilité su defee ñu dajaloo ak borom xam-xam ya ñu say ba mu wér kon daal na dem ci say ay seeni mbokk mbokk yi ku góor kookee wax ak ñoom lu leer nañ bu dee am na ab sëriñ mu dem ci sëriñam leeral leeral leen ko ba mu leer su ko defee bu ñoom buñ mënee wax ak moom alhamdulilah fay alal moom du ko ca fekk wërta fay dara bu mu joxe dara fay alal mooy jigéen ji daa bëgg dem te amul ngant waaye ku ñuy dóor nga bëgg a dem kooku waroo fay kon xulaxaatu moom du ci am da ko war a ma may baat far force bu fekkee dem na ci mbokk yi waxaat ak ñoom jéem boo gis ne mbokk yi jéemuñ ci dara te mi ngi yàgg moom moom yi nawoo ay jullit seedeloo leen ne kat dama ko may na sama doom leeral leen ko ba mu leer ak yi mu ci def comme kii ko nag seede leen ne kon sëy bis nekk tey dindi nañ ko daal di digal ko ne ko jigéen gi mu dem iddaw bu daa ba jeex mu may ko borom kër bu ko mayee borom kër nag bu jëkkër ji ñëwaatee naan euh, espace mës ta génnee sama gémmiñ gi ak nangam nañ ko bàyyi muy wax te xam ne kooku moom lislaam bayeetu ko xel lislaam bayeetu ko xel lislaam nit lay waxal ah, wala ko nangoo topp diine waaye koo xam ne gaa béccingal nangoo topp diine di xoroñoñal nit ñi incha allah ak di wane jikko ju ñaaw kooka na dajale rek ay mbokki jullitam euh, nijaayu xale bi ak ay kilifa ay jullit mu ay borom xam-xam leeral leen incha allah rabbi bu nappee mu dindi say ba nga ne ko ci nga iddaw euh, incha allah bu idda jeexee nag mu daal Euh, mu daal di ñu mayaat ko borom kër bu ko bu ko bëggee ñu jaaree foofa tontuwaale laaju mbokk mi doon wax naan jigéen ju ñaan borom këram baat borom kër ba mayu ko ba mu yàgg lool borom kër lu mat at borom kër ba doo kay may nga xam ne jotuñoo gisee ndax dana iddaw jigéen ju ñu fas rek da nga iddaw sëriñ bi bu fekkee jigéen bu ko jëkkër takkee bu fekkee mas naa séq ak moom donte benn yoon la gannaaw buñ toogoon fanweeri at mosuñoo gisante sax bu ko fasee faaw day iddaw idda moom du dañuy xool ndax idda ëmb du ëmb du loolu dong moo ko waral donte loolu am na ci solo waaye idda moom jigéen ñu ñu xam ba siqal dara rek boo toogoon juróom fukki at joteewul ak sa joteewul ak borom kër dara wala mu tukki gisante wu leen lu yàgg-yàgg bu la fasee faaw nga iddaw mënta ñàkk wallahu taala aalamu bisimilah mu dee laaj bi tege mbokk mi leer leerlu koo xam ne dafa fàtte xunuut luy àtte bi waaw xunuut daa bokk ci mustahabaat yi dañ koo sopp kon nag ko fàtte moom dara nekku ci incha allah rabbi Euh, mustahab ba buñ ko waxee mooy loo xam ne def gi moo gën bàyyi gi boo ko defee am ci tuyaaba waaye boo ko bàyyee nag doo ci am benn daan kon dara nekku ci bum ko sujjootal bu mu ko defal dara mu ne laaj bi tege mbokk mi laaj euh, ndax dagan na sangu janaba ci absence euh, sas yi xel yi <laughs> waaw sangu janaba moom duñ la wax ne la dagan na nga defe ko feek ci sens ci bërigoog ci paanak moom na nga fexe ba sangu janaba rek daal liñ lay sant al muhim daal mooy daal na nga fexe ba sangu janaba rek ndax ci paan nga koy defee ci sewook satalaak saas nga koy defee géej nga koy defee loolu moo amululu eh, lislaam du ko yittewoo na fexe daal na nga jëfee ndigal le rek incha allah bu dee da ngay ci saas nag li gën a eh, eh, gaaw moom mooy nga yéene rek daal di taxaw ci ron sens bi su ko def muy xel li nga raxas sa bopp raxas sa nopp fexe ba yaram bi fépp mat ak ndox loolu boo ko defee rek sangu bi moom dana gaaw te euh, xëy na moo lay gën a noppal bu la neexee nag mën ngay def sangu boobu ñu jàngale raxas cër bi raxas cër bi euh, lenn lu ci nekk rod na ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama mu dee laaj bi tege mbokk mi euh, laaj koo xam ne dafa njaaloog jigéen wala ayaasu billah yal nañ ci yàlla musal gannaaw bu mu doog koy takk man daal dafa sëy ak moom sëy bu xaraam gannaaw ba ñu doog ko koy may nga xam ne kon ñàkk may yëguñu loolu mu ne bañ ñu sëyee na bam doom ci dooja daal muy sikk sàkk daal nan doom ji daal boo wëttandikul ci sëy say ba mu sëyoon ak moom te moo xaraamoon wala yaasu billah eh, ca la juddoo waaw loolu de moom comme moom xas na ba def na la def ba noppi muy bu rëy bàkkaar bu bokk ci bak eh, kabaayir yi la ca des daal moom na tuub tuub gu sell ta sant soxna sa mu tuub eh, la ca des mu jéem a góorgóorlu ci jaamu yàlla rek waaye xam nga lu ñuy dabaatal mënu fi am ndax doom ci amul da kenn mënu ko wax ne ko doom ji fii la juddoo fee la juddoo wala kenn kenn xamu ci dara kon daal xas na ba rëcc def na bàkkaar ba noppi la ca ko tuub dong moo koy jariñ wallahu aalamu bu dee laaj bi ci tege mbokk mi laaj jigéen boo xam ne day gis mbaax bu fekke dañ koo fase ndax ci deret jooju ñu ko fase lay tàmbalee idda woo awalan mooy jigéen ju gis baax alxaid dañu dañoo tere ko ko fase yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ka saxaaba ba defee da ko koo tere ne ko demal nga dellu ci ginnaaw nga fayli ko bu demee ba nekk ci laab nag incha allah bu la neexee nga fase ko ay jigéen ju ñu fase ci deret baax bu doon bu ñoon atte wa sariya kooku dañ koy forcé ne ko faaw mu delluwaat ginnaaw ca fasse ma waaye bu fekkee jamono ji la nga xam ne nit ñi tënkootul ci lislaam eh, wala kooku sax fase ko ñetti fase nga ne xas na ba dog kenn mënu koo fayli ah, su boobaa nag jigéen ji faaw day gis eh, deret baax ja day jeex ba noppi muy doog a tàmbalee laablu deret baax jooju kenn du ko kenn du ko wàññiwaale day bàyyi ba deret ja set set laab googee mu cay teg bu ñu waxee laab mooy maa bay na demmay ni li nekk ci diggante ñaari deret rek set diggante bi mi mën a julli daal loola lay waññi kon bu deret ji jeexee ba mu am ak set bu set googa jeexe ba mu gis deret lay doog wàññi ne am naa benn laab deret jooje set ba mu gisaat ak laab di julliwaat laab googee bu gisaatee deret rek daal di wax ne am naa ñaari laab bu gisaatee deret ba deret jooja setaat rek mu ne am naa ñetti laab waaye deret jooju ñu ko fase mu du ko amal benn njariñ ndax faaw day xaar ba mu kon kooka daa gën a yàggal sax euh, iddaam xam nga gis nga nag buñ ko fasoon ci laab nag laab googee doonte sax ñetti fan la rek da koy wàññiwaale fi mu toll nii xam nga kon loola day arrangé jigéen ji nga ne kon kon su boobaa iddaam daanaka ñaari weer ak nangam xëy na lay doon ci misaal bu fekkoon ne dem ba di gis euh, set na nga dafa laab ñu fase ko tey jii mu teg ca ñaari fan dong daal gis deret fi ne loolu lu néew loolu da koy wàññi ñetti fan yooyu fi ne da koy wàññi ak laab la koy jàppe incha allah nga xam ne bu ca tegaatee ñaari laab rek day mat nga xam ne kon iddaam mën naa lool wallahu taala alamu sawaaba alhamdulilah bu laaj bi ci tegu mbokk mi laaj ne mu ne day laaj ñi nga xam ne dañuy wax ne sëñ Touba nekkul ci téere euh, loolu luñ leen mën a labiré waaw wax jooju damaa xamut luñ ci jublu xam nga ki wax dara da koy laaj da nga koy laaj ba xam loo bëgg a wax ndax mënoo tontu koo xam ne xamut lu xamoo lim bëgg a wax da koy laaj loo bëgg wax loo bëgg a loo bëgg waxee ne sëñ Touba nekkul ci téere bu dee ñu ko ci ay téere moom du dëgg ndax mi ngi ci teere ñu bind di ko jàngale mooy kan ak nangam ak nangam lañ mën a xam ci moom. bu dee taarixam histoire am fan la ganee jamono ak nanga ni mu dundee ba ni fi bàyyi koo ay waxtaanam loolu mi ngi ci téere yi bu dee may yàlla yi yàlla may te mu nekk yu kiimaane lool mi ngi ci téere yi bal moom sax moo ko bindal boppam bu dee ni mu bëggee yonante bi salaahu salaam mi ngi ci téere yi bu dee yoon wi mu bëgg taalibe yi jaar ci mi ngi ci téere yi bu dee moom mooy kan mi ngi ci téere yi moo ko bindal boppam moom mooy kan mi ngi ci téere daal bu dee wàllu saahir wàllu baatin wàllu histoire lu mu mën a doon ak wan yoon la jaaroon wan yoon la bëggul jaar num mu daa yara ay taalibeem nu mu àndoon ak mag ña loolu lépp dama mi ngi ci téere ni mu génnee àdduna ba nañ ko dencee ba loolu lépp moom mi ngi ci téere yi néewuñ nag nit ki sa dund yëpp day nekk ci ay téere ñëkkul loolee yàlla may loo loo xam ne moom yoonu téere yi du ci nekk sa diggante ak sa borom la waaye daal sëñ Tuubaa ci saahir mi ngi ci téere yi mooy bi mu fi jut bi mu gënee jamono ba ni mu fi jógee ci baati nit mi ngi ci mi ngi ci biir téere yi yoon wam nekkoon te santaane ñu jaar ca yoon woowa yoon wax ne ku ci jaar da jub loolu lépp daal moom mi ngi ci téere yi léegi nag mu des nag ki ne sëñ Tuubaa nekku ci téere moom lu mu bëgg wax boo waxee loola bu nee li ma jublu mooy nangam ñu doog a xool ba xam loola mu wax ndax mi ngi ci téere yi wala déet wallahu aalamu bu dee laaj bi ci tege mbokk mi laaj kuy jàng alxuraan dégg ñuy nodd nga ne dañoo santaane bu ñuy nodd ngay toppandoo noddkat bi mu ne noo war a def waaw ah, da ngay jàng alxuraan ba yem ci ab aaya nga taxaw ci aaya ba jëfandikoo ndigalu yonent bi salaa salaam bu jeexee nga doog a àggale sam njàng alxuraan comme alxuraan ji du weesu te noddu gi day weesu jàngal ba aaya ba jeex incha allah nga taxaw euh, déglu noddu gi bu noddu gi jeexee nga tàmbalaat aoudu billahi min ashaytaani rajim ndax heure booy tàmbale alxuraan noonu ko koy tàmbalee euh, su ko defee nag doo ko àggale sam njàng nga xam ne kon jëfandikoo nga ñaar yëpp laaj bi tege mbokk mi laaj ne euh, dafa déggoon ñu wax ne takk ëpp ñeenti soxna dafa xaraam. xam naa mbokk mi laaj juum na ci laaj mi ndax dane daa dégg man man mii daa dégg ma wax ne ku ko def euh, génn nga ci diine wala doo ab jullit déedéet loolu nag waxuma ko moom hmm, loolu moo waxuma ko ah. waxalaa kulli xaal li mu bëgg laaj nee na nag euh, li ñu waxoon ci takk juróomi soxna nee na daa gis daal koo xam ne daal kilifa la goo xam ne def na ko wala maye na doomam te kim koy may xam ne ne am na juróomi soxna wala ka ko def imaam la wala loolu lépp amul solo sëriñ bi buñ ne li yàlla da koy tere da koy tere jeex na koo mën a di koo mën a gis mu def ko rek def na lu yàlla lay tere loolu moom jërut nekk di sonn gis naa diw def ko loolu mu amu moom daal li yàlla lim tere yàllaa ko tere moom ci boppam euh, awalan sax li ci mat a leer mooy du man maa ko wax ñu bari dañaa dégg naa nga wax nangam déedéet euh, li téere yi bind yonante bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ko saxaaba yi jàngale ko julli ñi daje ci ak wéram loolu rek la ñun daje amuñu lu dul nettali moo amuñ ca benn ndam euh, amu ci kenn waruñu cee tagg dara dañoo fekk la téere yi wax rek incha allah ñu nettali ko benn borom xam-xam daana wax ne nettali borom nettali waxi jàmbur moom jërut kaalaw jërut tiitaru te loo fi waxit waxi jàmbur rek la da ngay fekk wax jëpp ci alxuraan la bàyyi ko alxuraan yonante bi sallallahu alayhi wa sallam saa borom subhanahu wa taala ne ko wa anzalna ilayka dikra li tubayina linnaasi ma nuzila ilayhim wa laallahum yatafakkarun leeralal nit ñi alxuraan ndigal yonante bi ne saxaaba yi leeral leen ñi ma fi saxaaba yi leeral ñooñu ñut di ko topp ba léegi nii tey kenn ku nekk di dimbale sa morom di leeral samorom morom yàlla ñu ci yàlla defal tuyaaba nangu ko kon takk juróomi soxna dama ne ko def faasix la waxuma waxuma ab yéefar la waxuma génn ci diina ci faasix mooy ku diina nawlootut koo xam ne diina nee kii matut royukaay ci dara kii di kii matutut royukaay ci dara ndax dafa fekk fu yàlla ne yem leen fii mu lànk continuer ka ko mën a def nag ak ku mën a doon jàppal ne def na daal lu yàlla tere rëyaay baag gis naa ko mu nekk kilifa ak imaam laak borom xam-xam bu dee borom xam-xam it jëfandikoo wut xam-xamam alquran nee na masalul lazina xummilu tawrata summa lam yaxmiluha ka masalil ximaari yaxmilu asfaara sëñ Tuubaa wa man xawaa ilman fa innahu ximaarun yaxmilu ku amee ba na fekk lu lu ñu war a xam lu lu araam mu xam ne lii araam na mu wëlbati ko def ko ah kooka dafa mel ne mbaam mu sëfi téere maanaam xam-xam bi da koo gàddu nii rek diisaay bi rek la am waaye nag loolu amu ci amu ci beneen solo ñaareel mooy yaa am na dafa am différence entre ku jàng képp yam ci ak ku jàng di ko jëfee bu nee borom xam-xam mooy ku jàng ba noppi di góorgóorlu di ci jëfee lam man waaye ku jàng xam ne lii xaraam na ba mu kon di ko def nag kooku moom jaahil la ah, sëñ Tuubaa nee na wala af nal funun doon te jeexal na téere kon buñ jàngalee ne lii diine da koy tere bul gis nit nga defe ne kii rëy na rëy rëy goo xam daal kii daal li tax mu kon lu tax mu def lii nangam ndax daa am ñu ko sañ déedéet takk juróomi soxna dafa xaraam ci sariatul islamiya képp koo xam ne ne damay damay topp sariya incha allah rabbi rek kooku moom xaraam na ci moom bu ko defee xëtt na ndigal te bu fekkee ne moom xam na ko xam na ne kii muy takk ab juróomeel la soxna sa xam ko su boobaa loolu ci njaaloo la ñu nekk wala iyaasu bi la bu ca doom juddee doom juddoo doom ca wërta doon du doon bàyyam doomi njaaloo lay doon ka mën a def ak kum mën doon nag loolu moom jërta réyal kii def na kook da déedéet amul ay at amul tolluwaay kenn mënu koo jéggi kenn ta sut ba sut li yàlla xas ba jàngale yonent bi salaasam jàngale ko kenn mënu ko kon loolu jërët di wax eh, gis naa diw def ko gis koo mën a gis luñ la jàngale ci diine daal mu wér ci alxuraan wala ci sunna ne yàlla da koo tere ku ko a def it jàpp na lu yàllay tere rek bum la jaaxal nag eh, dama ko gis mu def nii dama ko gis mu amub sikkim dama ko mu def na loolu moom du ci dara jaay eh, ñi jaay seen bopp dafa araamut ñëpp xam nañ na waaye bis yaa seen carte ne dañuy jaay seen bopp ñi naan sàngara xam nañ ne sàngara xaraam waaye ñu ngi koy def kon nag gis nit mu di ko def koo mën a gis daal lu mu jàng-jàng ak luñ ko lu la jaaxal jaaxal lu ko nit ñi fonk-fonk nga gis ko mu fekk lu yàlla tudd ne dafa xaraam yonent bi tudd ne dafa xaraam mu def ko sariya nee na kooku ab faasix la maanaam euh, matut ab royukaay sariya jëppatu ko kuñ war a kuñ war a rey kuñ war a bàyyi xel mbokk yi lii moo fi jotoon a teew ci ay laajo ak tontu lépp lu ci jub ci yàlla rek rek la lu ci dëng na ci gàtt xam-xam ak euh, tabarak matatik doomu aadama rek la borom xam-xame danañ ko jubbanti wallahu taala alam wa raddu ilayhi aslam wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain bismillah bu dee laaj bi ci tege mbokk mi euh, laaj ne góor goo xam ne dañ koo jàpp mu doon njaalo ak jabari jàmbur wala yaasu billah lañ ci yàlla musal Euh, bañ ko jàppee nag mu daal di joxe xaalis ne nañ ko suturaal jéggal ko mbokk mi laaj ndax alal jooje waras na koo jël waaw manes na koo jël ndax day mel ne ameel na àq borom kër gi ameel na àq mbokk yi ndax dugg ci kër jàmbur tooñ fa tooñaange wu rëy loolu nag jotewut dara bàkkaar ba moom bàkkaar ba moom bàkkaar la bu mu siq suñ borom subhaanahu wa euh, ndax suñ borom da ko tere woon na ko bu mu jege bu mu jege njaalo moom mu njaalo waaye yokku ca nag njaalo ak soxnas soxnas jàmbur nga xam bàkkaar la boo xam ne borom xam-xam yi raglu nañ ko lool am na ñu ne nit ki mën na caa jaare yàqu luñ ci yàlla musal ruur toolub jàmbur lu mat a lu mat a wattandiku la waxalaa kulli xaal bu dee li jëm ci laaj bi moom comme dafa tooñ tooñ yi fi jàmbur gannaaw ba ñaan njekk njaar sutura wala nangam joxe ci alal jëkkër ja bu ko gërëmee rek loola mën na koo mën na koo jël bu ko neexee nag mu jéggal ko rek ngir jëmme yàlla te suturaal ko su ko defee nag comme nekkuñ ci dëkk buy àtte wal islam la fa tegu rek mooy tuub bu tuubee seelal jëm ci yàlla rek saa borom nee na ah, dana koo wala walladina isa faalu faahisha aw zalamu anfusahum dakaru llaha fastaghfaru li zunubihim wa man yaxfiru dunuba illa allah waaye rek bi charti walam ala ma faalu bañ a continuer ca la nga nekkoon nga nuur ca rek al israaru fil maasiya kooka moom moo baaxut lañ ci yàlla musal wallahu aalamu bu dee laaj bi tege mbokk mi Euh, laaj ku doon rendi ab gàtt waaye mu xiiti xiiti dëggut mu changé ko jëlaat beneen paaka doog a rendi ndax wér na waaw loolu moom wér na li doon garaaw kay mooy mu rendi ba nga xam ne fi ne bu ko bàyyi woon far force day de mu doog a tegg loxo mottaliw ko te loolu sax da euh, bu fekkee gaawut bu bu bu yeexantaloo bu yeexantaloo lool rek mu yëfee day yàqu waaye bu fekkee ne daa dagg ba sonn dëggut gannaaw mu wut beneen paaka lool moom dara nekku ci wallahu aalamu bu dee laaj bi nga xam ne moo ci tegu mbokk mi euh, laaj ku amee janaba te yorul ndox mu ko doy nga ne mën na caa sanku te julli jot nu muy def day tiim day day tiim euh, fa in lam tajidu ma an fa tayammamu moo ci tegu loolu rek la kon ku amee janaba te amul ndox mu mu sangoo wala am na ndox waaye ndox mi mu yore mënu koo sang ndox mooma incha allah du ko jariñ dara kooka day tiim rek te bu bu da ciy yéene waale day dagan lu tiim bi ci julli ki maanaam daal day bàyyi xel ne am na janaba su ko defee nag tiim bi du mënu koo teggil sangu bi nag heure bu amee ndox moom faawu sangu waaye nag ndox moom du ko jàppoo da koy tiime rek incha allah rabbi du wax na tamit naa xaar ba am ndox sangu doo ko julli lool bu ko defee ba faatu waxtu day am bakkaar faawu daa war a daa war a a julli daa war a tiim te julli heure bu amee dox nag doo ko sangu tiim bi da koy may mu julli rek waaye du teggi ba du teggi janaba ji ak lu mu yàgg-yàggit noonu lay def bu doon ñetti fan ak lu man a doon heure bu julli jotee day tiim te bàyyi xel euh, janaba ji daal di julli wallahu aalam mu dee laaj bi tey mbokk mi laaj ne euh, lislaam num nu mu jàngalee sangu nu mu jàngalee tànn soxna soxna am na ci côté boo xam ne moom yonente bi salaa salaam jàngale na ko euh, am na ci côté boo xam ne nag nit ki mooy xool li ko arrangé ci dunduk addunaam bu fekkee nit daa bëgg soxna su rafet nga xam ne moo ko arrangé xam ne bu ko amee dana ko dimbale ci mu fegu ba du gis du xool beneen jigéen xoolu bànneex di ci am bakkaar loola baax na bu dee soxna so am alal la bëgg baax na bu dee soxna su am eh, ni ko ni ñu koy tuddee yax bu rëy bu bokk fii wala nangam ba tey baax na ki mu ne man kat eh, ab géwal laa géwal rek laay takk kooku mbirum boppam la lislaam moom du ne ko bul takk bu ne ko takkal bu ne ko bul takk li bon nag mooy sikkal nangam baaxut wala yu mel noonu askan wi baaxut loolu nag ak tooñ la tak beew la euh, xaajale jullit ñi la lu xaraam la tamit amaa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom ba muy wax dana jigéen day mënees na koo takk ngir dafa am alal tunkaxul mar'atu li xa wa li xasabiha wa li diiniha yooyu yëpp wax na ko mënees na koo takk ngir daa bokk jeex bu rëy waaye man nag li ma leen digal mooy na ngeen bàyyi xel diina ja kon nag ya nga xam ne moo arrangé nit ki nga xam ne tànn boppam la nit ki moom lii la bëgg ndax loola loola muy tànn fekk loolu la bëgg loolu da koy dimbale ngir mën a yor soxna si ndax bu fekkee ne euh, yonent bi saas nee na moom diina na ko ci bàyyi xel mënut a ñàkk ndax diine mooy li ñuy boole adduna ak àllaaxira bul tànn bul tànn adduna kese koo xam ne baaxut euh, dégg nga jikko ci baaxut yërwut di fu nangam boo ko tànnee ngir taar day yàq sa njaboot ndax da ngeen war am ay doom te koy kuy kuy ji nag da ngay xool suuf su baax wal baladu wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi isni rabbi walladi sa laa yaxruju illaa nakida kon jiwu bu baax boo ko suulee ci tool bu baax day jebbi indi la gàncax gu baax waaye boo ko su ko boo ko suulee ci tool boo xam ne baaxut nag ah lu bon rek la lay indil noonu la ko alxuraan jàngalee waaye yonent bi daal nee na li ma leen digal ci tànn ga daal diine daal moom bu mu ca bu mu ca manqué ne ko ca bàyyi xel bu baax a baax mën naa bañ a mat sëkk nag ndax kenn matut waaye na nga góorgóorlu ba euh, fexe mu am ca dara la ca des nga di ko jubbanti. mu dee laaj bi ci tegee mbokk mi laaj na day gis léeg-léeg nit day toog ci kanamu ab sëriñam wala nit ku ñuy warmaal sumbi mbaxanaam ak yu mel noonu. waaye buy julli nag sol mbaxana wala kaala wala yu mel wala yu mel noona waaw xam nga julli yonante bi mooy jàngale naka lañ koy defee lu ci yonante bi jàngale rek noon lañ ko war a lu loo xam ne kenn ci lislaam neelul neewula lii aay na loolu boo ko defee dara newu ci kon kuy julli ko neexee sol mbaxana bu ko neexee kaalaw yonante bi danaan kaalaw saxaaba yi dañ daan kaalaw te yonante bi santu leen ñu dindi ko kon kii julli moom lool lay xool moom du xool naan ay li ah, nangam ak su may def ne su ma demee fee dinaa def li déedéet moom la muy xool mooy yonante bi nu mu jàngalee julli sol ay sallu kama raaytumuni usalli yonent bi neen na ngeen julli ni ngeen ma gisee kon nañ ko gis muy julli noon la ñuy jullee jeex na la ci des nag mbirum aada la toog a sëb sëriñ sa mbaxana kooku mu yaay xool euh, summi say weer yaay xool kooku da koo neex da koo neex néewuñ ko toog ci kanamu sëriñ sol ay weer da ngaa ñàkk teggin lool kenn waxu ko incha nit mën naa toog ci kanamu sëriñ mën naa sol mbaxana te teewul mu warmaal ko ka koy def nag sentiment ba muy am moom day xeeb boppam ne ah, kii man day sëriñ bi du ma toog ak moom di takk weer wala du ma toog di sol mbaxana kooku moom mbirum boppam la bu ko tànnee ba mat ay teggin nag waaye nag kenn néewut ku siyaare ab sëriñ sol mbaxana ñaawi teggin la déedéet loolu moom waxuñu ko waaye nit ki nag mooy war mooy moo xam eh, barab bu ci nekk lan la jàpp ne la la fa war a def waaye amaa julli nag dañuy xool ni ko yonent bi jàngalee woon comme sol sol ci mbaxana ay daw ko tere daa nañ ko def ku julli mën ngaa mën ngaa def loola wallahu a'lamu bu dee laaj bi ci tegee mbokk mi eh, laaj ndax kuy def dar san ñu jox la xaalis boo xam ne xëy na jaarul yoon xaalis boo xam njóobeen da koo jaarale fu mu ko wër te jaarale da koo sàcc wala daal lu mën a xew ndax dana dagan mun da koo transféré waaw kii transféré moom luñ ko jox rek mën na koo transféré loolu moom <laughs> tabarkàlla loola eh, maanaam néew néewuñ ko faaw booy transféré da ngay xool alal ju dagan ndax loolu mënu koo xam sax te it sënduñu ko mu di ko lijjanti moom daal ab liggéeyam mooy jox ko alal ne ko alal ji yóbbul ma ko ci numéro bi wala ci compte be mu jël ko yóbbu ko foofa la ca des nag ka sàcc alal wala yu mel noonu kooku moom bàkkaaru boppam la wallahu a'lamu